soo gis dëkk nag ci booru tefes dafa am loo xam ne dafa mat a jàngat ci gaal yi waa Touba wuñ ko gaal yi waa waa waa Thiès yóbbuwuñ ko waa Bamba yóbbuwuñ ko dëkku lébu yi ñoo yóbbu gaal yi cause ba fa am rek ñoom loolu rek doyoon na sénégalais ak euh, maanaam état def ci jàngat mm-hmm. Mm-hmm. mais ñoom dañu mel ni dañu xaw a sàggane euh, li sama classe gi wax borom bu buy oyof yi mm-hmm. ndax ñun 2006 bi ñëwee danoo yëkkati suñuy kàddu fu nekk ci télé yi fu ne dem nañ fa wax ne leen dañ teel a jël seen i ci xale yi nekkaat suñu kanam. Mhm. parce que ñun bi ñuy dem 2006 am na ñun àndaloon seen i papa des ci biir géej gi xale yi ñu fi bàyyoon ay 2 ans 4 ans la amoon. tey léegi dem nañ ba cinq 25 ans wala 20 ans. léegi seen papa ba mu demoon. Mhm. tey la gën a pire. tey a waay a ay. léegi nag loolu noonu moo waral tam bi mu demee ba vague bi jógaat dem ba gën a garaaw ndax ay jigéen sax da ci mujj ak xale yi ngay wax. na te pourtant ñun yàgg nañu alerté ni kat teel leen a jóg ci ñu xool nan la nii xeexee bateau yi de pêche yi nekk ci biir géej gi nga xam ni état moo leen defal ay ay ay pour ñu mën a mbaal ci géej gi nan leen leen teel a xam fi ñu mën a yem ba ñu man a réserver géej gi ba xale yi doomu dëkk bi nga xam ne ay mool la ñu mën a am lu ñu jàpp ba kenn du jóge ci àll ba leen ñëw di leen convaincre pour di leen jox li leen di mën a ger pour ñuy bàyyi liggéey bi ñu doon def di mën a dugg ci gaal yi parce que mool bii dugg ci biir gaal di dem ci géej gi dafa am ci affaire bi benn mën naa dawal gaal bi te su demee day amaal day amaale occasion mën a defaale immigration comme ni ko ñëpp di defee. Mhm. kooku su demee tey ba daan dem def def euh, 40 litres wala wala non cent litres daw tuuti rek dab jën bi jàpp ko tey mu def 300 litres daw bay bëgg a dee te du jàpp mhm. hmm. bàyyi fiy doom bàyyi fi ay jabar yor famille bu mag ñëpp di ko yaakaar ci gaal boobu mu amee ci kër gi mu war a dund ci loolu pendant 3 ans 4 ans la mu réserver woon sax day mujj defaat ko ay dépense bien sûr sinon dootul dund. Mhm. kooku tey su demee ba nekk si koñ bi. gis ni kat man xam naa géej xam naa yoon bi parce que chepé su léegi dafa xew mhm. téléphone bi nga yoon ni rek mën nga cee xam jël say programme léegi pour dem Espagne léegi nag li amoon 2006 bu doon ba metti woon mhm. comme ñu jotoon nañ ko dund ba xam ne dëgg dëgg lii métti na doy na warte waru ñëw seetaan ñi di ko def bi mhm. ñëwee dañoo alerté ba sonn mais kenn dégguñu woon xëy na nag li ko waraloon mooy mbubuy oyof yi mais tey kii nekk na problème ci réew mi ba képp kuy def politique boo waxee benn baat moom ngay jëkke booy mujjantal moom ngay daaneel te ñun dañu doon xas sax 2006 bi ñëwee naan ñi dañuy xaraw ñi dañuy def nangam dañuy def blâmer ñoo blâmer trop mhm. mais booba néew nañu kàttan fu ñu ko jooyee ni ñi li ñuy wax ni xamuñu ko mhm. parce que duggoo ci kër nit bu fekk jafe-jafe yi muy dund exactement te bu la waxee boppam dangay jàppale sax kii day caaxaan mhm. beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne nekkuñu ci wàllu géej Petersen ñaata personne ñoo ko doon liggéey bari nañ euh, liberté 6 fii ñaata nit ñoo fi doon liggéey ay jeunes Cambérène ñaata nit ñoo fi doon yooyu nga xam ne ni dañ fi nekkoon di daan seen i doole jóge ci àll ba mhm. di ay bawal bawal wala ñu nekk ay waa Saloum wala et cetera fi mu doon mhm. ñëw fi def seen benn plat table bu ndaw di liggéey yaakaar ci lu ñu yóbbu seen i famille mhm. nga ñëw fekk leen fa buub lépp te préparé loo leen foo leen teg ñooñu war a delluwaat seen famille nekk nag di di souffrir loo xam ne xamuñu sax exactement nan lañ koy dundee seen biir a yaakaar koo ci gis soutien léegi na yow nga ñëw fekk ko fi muy liggéey nga ñëw placé lépp ramasser dem sànni man ñëw ma fi pour défendre kenn pour muy dem di mbëkki mm-hmm. parce que man xam naa li ci ne mm-hmm. mais dama bëggoon ñu teeloon waroon bàyyi xel que ni nit koo koo koo yàqal soxlaam war ngaa bàyyi xel ni ëllëg soxlaam bu taxawee bu amul fu mu ko faje dina faje neneen nu bokkul ko bëggee woon li nga doon defar pour dëkk bu rafet mm-hmm. wala ngay préparé dëkk boo xam ne dafa stable préparé ko ci nit ñi ba ñu nekk moo ëppoon solo lool ci li ma yaakaar jàpp naa loolu bokkoon na ci. c'est vrai dafa te cause yooyu yëpp dafa daje ci réew mi tey. Mm-hmm. mu doon cause yoo xamante ne si bokkoon na ci li tax immigration muy naqaree téye. Mm-hmm. te nit ñi dañuy xeeb lool ki nga fekk ci palaatam palaasam muy jaay lu ndaw nga xeebal kooko dem yàqal kooko te joxoo ko dara lu mu jàpp. mu nekk benn rànk ñi boo xam ne ma nga toog fa mm-hmm. ay ay moroom ay moroom ba mu man mat yenn kii bu yàggee bu ñu fippoo rek lépp lu leen mën naa xew tey nag li ñu andi problème yépp loolu yépp bokk na ci. kon nga japp né en 2006 quand le phénomène est né. ce qu'il fallait faire ils n'ont pas fait. Euh, autorité bi ñu dénoncé mm-hmm. donc motax tay bi vague bi ñëwaatee. ñëwaatee xalé yi gëna mag jeunesse bi tout ça c'est vrai que Bion mom c'est c'est juste extraordinaire. Mm-hmm. ce qu'on a vécu avec cette euh, motax dama euh, bëggoon mu ñëw ci loolu puisque mom jot na dund parce que dégg na pas mal d'exemples yu ñu lay wax bi gaal gi këppoo bi gaal gi xaree. Mm-hmm. kii di yuxu ki di dem yow Mamadou Diop. Mhm. nga nekk jullit. Mhm. en tant que jullit. Mhm. nga xam nit ku dem. niñ koy waajalee. niñ koy préparer. ci sang bi. ci jullee ko. ci ñaanal ko. ci def li nga xamante ne moo gën ci doomu aadama ñu baal ma sama xol bi dafa tooy. <laughs> yow nga nekk ci géej gi di dem ak ñoom. nga ànd ak say rak. ñu dem te munoo ci dara. nga téye leen say tànk ñaanal leen sànni leen ci biir géej gi. bi nga ñibbisee yow sa conscience loolu la la la def. <laughs> may mun a yaa ngi may dugal fu doy waar nag vraiment parce que euh, 2006 bi ñu déparé man sept personnes dafa dee sama kaw. Hmm. avant ñuy génn àdduna yàlla dogal na si am na ci ñoo xam ne wax nañu ma sax seen soxla. ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla euh, maa ngi leen tuddloo yàlla laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ba ñu wàcc liggéey. ñu koy tudd. ñu koy tudd ba wàccee liggéey ñaari nit ñoo xam ne kenn ki sax xam naa ko mais kenn ki xaw ma ko. Hmm. yàlla boole ci gaal gi rek. bon mooy li nga wax ni mais bi ñu nekkee ci gaal gi ñun ay sénégalais lañ bari nañu fii ñoo xam ne suñu borom dimbali na leen. Mm-hmm. am na ci ñu doon tooñ sax di leen tuddee turu ibaadu xam nga ibaadu mooy ki gëm yàlla. Mm-hmm. te di ko dund. Mm-hmm. mais ñun sénégalais yàlla dimbali nañu ci tawféex googu ba lu ñëw rek den wéeruwaat ci diine wékkuwaat ci sunu mag ñi li ñu jàngal ba tax ñun ñu am ndëgër laay ba mën a tenir loolu mais loolu du lu yomb a wax dëgg yàlla. ku ci nekk ci biir nag boo yàlla dogalee nga wàcc liggéey dañuy woo ñi nga xam ne ñoo ni ci gaal gi te am ay doon ay mag ci biir gaal gi ñu waxtaan kii kat dafa génn liggéey dafa dafa wàcc liggéey dafa faatu daal ñu waajal nit ñi waajal jullit hmm. mais xam nga boo nekkee ci biir géej nekkoo fu am ndox nekkoo fu am parce que bu la fa julli fekkee da nga def hmm. mën ngaa jàpp ci ndoxu géej bi julli hmm. mais ñoom tamit bu ñu génnee liggéey bu nu bu nu bu nu euh, décidé ci ci gaal gi dañuy waajal ko li ñu war a waajale kii summi yére yi nga xam ne daf ko sol tam am ay dessin hmm. solal seet ci yére yi gars yi kan moo ci am yére bu amul benn dessin parce que yére bu am dessin kenn waru ko ropaale kenn waru ko sànniwaale ak nit hmm. ñu solal ko yére ba man ni summi naa sama benn silet ma ak benn t bu weex solal ko nit ñu kii ko mais dee bi metti na trop lu doy waar la ah, mënul ñàkk parce que moment bu ñu koy sànni li tax nga di ko sànni mooy ni boo ko deful rek nombre bi ne ci gaal gi ah. parce que doomu aadama néew yooyu mënoo a voilà voilà mënoo leen a bañ a sànni mm-hmm. mais da koy sang laa bëgg a wax moom mënul nekk parce que li tax mënul nekk mooy gaal gi boo ci nekkee amoo espace boo koy sange mm-hmm. ba pare soo koy sang ci ay xale yoo xam ne comprendre mosuñu gis sax ko dee mën nga indiwaat sax jafe-jafe bu gën a garaaw mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne psychologiquement dañuy dañuy dañuy bu ñu déggeen mais dañ ko ñaanal def wajal ko ni ñu wara war a mom vraiment moom ko waaw ñaanal ko jullee ko après nag waaw dafa yéme lu ndoy war ngay wax li motax bu ko ma ci dugg ci cadre boobu mais comme waxtan la aussi tamit da fay bax do yi xam xamni tamit xalé yi ñi ngi dund lu doy war mhm. waaw waaw waaw ñi dund lu métti. alors peut-être j'aimerais bien que professeur euh, indi ci gis-gisu euh, euh, diine par rapport ak d'abord même voyage bi le fait que tay nga jël gal xam nga ne c'est un risque. Euh, tu parcours des milliers et des milliers de kilomètres euh, bi ngay dem dara la ndax di nga parce que ñom ñep ñi dem c'est un risque que tu prends d'abord gis-gis par rapport après aussi ki nga xamantene na ci condition yoyu ñu jël ko euh, ci l'islam waaw l'islam euh, Thierno ñu ngi nuyu suñu mbokk bu baax a baax di rafetlu euh, intervention mmh. parce que li mu wax dafa am solo parce que d'abord luy boo ci wax rek d'abord yaa ngi wax sa vie privée méttit mmh. méttit bi nga xam ni euh, nit dundu na te lislaam daf ñu jàngal ni doomu aadama boo nekkee ci barab di fa dund mmh. mu xat ci yow ci dund islam may na la nga jógee foofu dem feneen foo xamante ni mën ngaa dem uti fa liggéey